kay yéeg Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf Macky Sall dafa corona virage l'observateur moo ko bind dàng ci xëtamu njëkk ni mu doxalee ci mesures yi mu tegoon ngir xeex coronavirus bi ak kàdduy démbam yi ci message à la nation bi bi muy xamle ay woyofal yu mu indi ci état d'urgence beeg dogal yi mu ko boole loon ndaxoon coronavirus bi woro yooyee la suna l'observateur xëy di jàngat yéenekaay bi xëy jël wax ji jal ko séq ko juróom-ñetti kàngam maanaam expert ñu di ko tong-tong Pierre Ahmed pression économique ak sociale bi mu yenn woon moom la àttanul moo tax mu yenneeku ko professeur Massamba Diouf fa dib enseignant chercheur ca faculté médecine yu ci biir yéenekaay bi li mu xam ba xam ko daal moo de ci hôpital yuy fees bay tuuru ca la ñu jëm beneen expert di Jean Charles Biagui dib jàngalekat buy xeltoo ko gëstu jëme ci wàllu politique ne moom waxi président Macky Sall ji woon démb seetlu na ci ay contradiction ak i incohérence dul jeex maanaam wax yu waroo ko wax yu wérul enquête dina kay nañu li wér daal te président Macky wax ko démb moo di nañu fexe nuñu dëkkaale ak coronavirus bi te bañ koo yaatal ndax gan gu la gane si ñibbi mënatu ko wan ko ginnaaw na ngay def mooy seet naw jëm a dëkkee ak moom te di ko moyt wax ne jàngoro coronavirus bi jógeegul ci réew mi moo ngi fi ba weeru août jàpp septembre bu weesoo loolee la Sénégal mi ngi ñuy xamal ne Macky Sall def na woyefal ci misir yi àndoon ak état d'urgence bi mu jaamukaay yàlla yi ñu tëjoon dañu leen di tijji couvre-feu bi daan tàmbali vingt daan jeex six heures matin soppi nañu waxtu wa léegi vingt maanaam néeféer ci guddi ca lay tàmbali jeex cinq heures matin ñi seen i mbokk faatu bitim réew te coronavirus bi faat leen ñu bëggoon leen a fii ci réew mi ngir denc leen fi ñu leen ko doon bañal loolee nangul nañ leen ko léegi ko amati mbokk mu faatu bitim réew ndax coronavirus bi bu say mbokk président Macky Sall indi ci yoolamal ak woyofal téemoña mel na ku naan ko wala muy bañ ku ko indi li ñool ñool ndax jumaa yeeg jàkk yi ñu tëjoon dégg nañu fi ay këri diine ñu ne duñu ko nangu danañu dem ubbi jumaa yeeg jàkk yi julli jëfal journal le téemoña nañu xeeti xupp yooyee moo waral général Macky Sall teggi tànkam état bi moom it reculé vox populi bind ne bombu coronavirus bu kalaatee ci réew mi nañu xam ne Macky Sall moo ko activé jox na coronavirus bi autorisation ngir mu ba noppi wax ne covid 19 fi jóge gu fi léegi ñook moom ba weeru août jàpp septembre lu soxal jumaa yi ñu tijji ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye mi ngi xam ne ci biir journal Sud Quotidien dogal boobee ñoo ngi ciy liggéey fii ajuma ji di ñëw ca lay jàppande te bu boobaa it li ñuy may ñuy daje di jullandoo ci jumaa yi wala ci jàkke yi du weesu fukki nit ak ñaar ak imam bi ndax duñu nangu nit ñi di songandoo jàkke yi jumaa yi di fa dajaloo ak di fa bari Ama Codou Diouf ne waa Sud Quotidien dogal bi jëm ci ubbiwaat jàkke yi jumaa yi moom gëmul ne ci waa di docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye directeur général de la santé yéen kay ñu ne démbo tàng jër ak we xàtt la boole la Sénégal nañu bi muy def bilan bés bi jëm ci coronavirus gi ci yor yor gi dafa àllu woon ne lu jëm ci garab gi di artemisia ak coow li ci am vaccin bi ñu ne dafay faj covid ba tax am ñuy dugg ci kër yi di ko defal ñenn ñi ba ci ŋàññ ñi doxalinu ministère de la santé ci ni muy xeexe coronavirus bi lu ci nekk docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye wax na ci ba xam ne sax ne waruñoo nangu ak li ñu tabax lu nekk fàggu gi ñenn ci askan wi tàmbale bàyyile ko ci fàggoog fagaru gi ñu nekke woon ngir xeex coronavirus bi fajkat yi ci réew mi journal libération nee nañu kenn gënu leen a sonn jamono ji mu di corps médical bi ndax ñii jël nañu ci coronavirus bi ña ca des bu ñu demee ci kër yi di defar ay prélèvement ñi corona seen bakkan ci xott lay nekk ndax dañu leen di menacer ak di leen tëkku